dal leen ak jàmm mbokku internet yi El Hadj bu 2STV kaddu ya mu yëkkati ca Youssou Ndour jëm ci jàppale gum ko doon jàppale benn jege ñaale gu sës rëkk ci Youssou Ndour di Abdoulaye Mané weddi na yooyule kaddu dama ne bataaxalu tontu bu xaritu Youssou Ndour bi def daanaka saf na sàpp ndax daf koo xorom poobar ko kaani ko teg ca nag dal di cay toqal tuuti lem ñu ne déeta waaye Abdoulaye Mané naan PDG bu 2STV mag day wax dëgg Abdoulaye Mané nee na man maay xaritu benn bakkan bu Youssou Ndour dem na sax ab doom bon soxlawul may ñëw ci sama diggante ak Youssou nduur ak jege ga ma ko jege ndax sax nag du loolu moo ma tax a jóg El Hadj Ndiaye bu 2STV lay waxal ci wàllu kàddu yi mu yëkkati jëmale ci Youssou nduur benn bërëb ba mu wax du ab appartement ab kër la woon te googule kër Youssou nduur a fa nekkoon ndem si yàlla Habib ak man mii di Abdoulaye Mané te ñu gën maa xam ci turu Saint-Louis yow El Hadj Ndiaye ba nga yëkkati sa kàddu yi nii jëmale ci Youssou Ndour nga xamante ne ay kàddu yu nekk ci ginnaaw dëgg la xamoon nga ne sama waaji du la tontu waaye xamal ne nangaa xaabaabal ba wax lu dul dëgg allaaji jamono ja nga doon wax maa nga woon ca kër ga ak Youssou Ndour ak ndem si yàlla Habib ak keneen ku ñuy wax du Sagna te nag jamais mukk mosuloo fay benn yoon ab location yow mosoo ñëw fat sax lu tolloog benn waxtu te sax nag xanaa yow alaaji loolu bu amoon waroon ngaa am suturaay noppi waale ko moo gën ngay toog di ko waxtaanee suba ba jant sow amoo sutura Ablaye Mané ma ngay joxoñe baaraama borom 2STV nan ko alaaji alaaji alaaji danga si la pëyis lan moo la matt ba waral ngay doxalee nii mu jaral la ngay fent ab baayoo ci sa diggante ak Youssou Ndour li nga wax du am sax ci gént comme ni ko samay doom di faral di waxee même pas en rêve te nag fàtte xaju fi may ma ma delloo si la sa xel sa saa waaji benn yoon rek kott dong nga mësa liggéey ak ñun ci coproduction wu album biir Sorano bu weesoo loolu lépp lu dox sa diggante ak Youssou Ndour duplication de cassette la ak location studio te bu desaluñ la dara yàlla dëgg la bëgg ba tey Ablaye Mané wax de naan ko allah ji allah ji allah ji segam làq nga lu tolloog juróom benn fukki at yu toftal juróom ñeent comme ni nga ko waxee waroon ngaa ruusa nag di génnee ay kàddu yoo xamante ne nii du def lu dul di la suufeel waaye jàppal ni su fekkee ne yile kàddu yi nga yëkkatee la nga ca jublu woon mooy fexe ba tuuru lëndëm yenn ci ay artiste xamal ni dóor nga sa bopp marto ndax nga sa bopp de juum nga ndax nag donte ñun la sa njàmbaarteeg sa daraja bul fàtte ne waa réew mi xam nañ ak kan mooy Alex Ndiaye ngelawaay Alaaji seetal li ngay wax te teg ko ci yoon moo gën ci yow gën ci ñun Alaaji Ndiaye dund gi de gisuma ci lu jar xiiroo ak ŋaayoo defe naa ni lu dund gi gàtt gàtt ah nekkin wa war naa gën a sell de ndax li ñu dund ci jamono yu weesu rek ah, doy na seede Alaaji yaakaar naa ne nag di nga yegg ci dayoo daraja bu mag te sell ndax li gën a yées ci li ma la yéene mooy jàmm ak naataange jàppal rek ni ko ndaanaan woykatu Sénégal bii nga xamante ne jamono ji mën nañu wax nag ne woykatu Afrique la Youssou Ndour waxoon na ca woy wa Alaaji ay dogal ku ko xam rek noppalu wasalaam yeewaay samba lii daal mooy kàddu ko Saint-Louis Abdoulaye Mané di xarit bu sës rëkk ci Youssou Ndour jëmale ko ci El Hadj Ndiaye borom 2STV mi mu jàpp ne yooyu le kàddu yu mu wax ne da doon dimbale Youssou Ndour tegu ko fenn ndax du dëgg jërë ngeen jëf